asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi nuyoo di ziar ñëpp bu ngeen gisee suñu toogaay bi fii tey nag li ko waral mooy dañu organiser bis bu mag boo xam ni waa daairatul mustarsidin wal mustarsidaati section bu saaw bokk ci localité bu mbooro moo ko organiser muy conférence bu mag bu ñuy amal ci troisième jouru tabaski ki koy def di al oustaz Cheikh Ahmad Tidiane Sarr di directeur u institut al irshad conférence bi nag ñu ngi ko dara jaale ay kilifa yoo xam ni yu mag lañu ñu xam ci biir réew mi ki ci jiitu di suñu baayu daara baay Cheikh Mariane Boy bu Fass Boy waaye tamit di ci delloo njukkal suñu honorable député Massata Samb bu Tiwaawoon ak itam honorable député Mamadou Niang waaye itam di ci e, dara jaale honorable député soxna Awa Diène di ci woo nag e, soxna Dieynaba Ba di meeru Fann Point E waaye tamit di ci woo soxna Sophie kamara bi nga xam ne moom moo nekk première adjointe maire bu Parcelles Assainies di ci woo it mboolem koo xam ni jullit nga di ci woo képp koo xam ni yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waaye itam di ci woo mbooleem dawaayir yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci biir dëkk ba waaye tamit ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca zone ba di ci wax ni programme bi programme mu ñëpp la waaye tamit bisu daara la bisu alquran la bisu xam-xam la euh, conférence bi nag thème bi moo ngi nekk crise des valeurs rôle des daara maanaam euh, jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ci wàllum jikko ak itam jafe-jafe yooyu lan lañ ciy xaare daara ndax daara la ñuy taxawal te ku wax daara nag wax defar pénc kon thème boobu ki ko war a traité tamit nekk koo xam ne ku ñu xam ci daara la mu di al oustaz Cheikh Tidiane Sarr li tax nag ñu koy amal mooy dañ doon tabax benn institut bu mag a mag di ko tabax foofu sa ca foofu ca saaw tudde ko institut al irshad institut bi nag biñ ko commencé ba léegi ki yoroon liggéey bi mu ngi nii ci sama wet muy Yankuba Ndiaye dañ koy jox kàddu gi mu leeral liggéey bi nan la demee ba ak si fii mu ak si tey. salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziar ah, xam naa dañuy ñëw directement rek ci ni ko mbokk mi junje mooy suñu mbokk masil la ndax bu ñu xoolee daara ji biñ ko commencé ak léegi yàlla dogal na eh, liggéey bi ci suñuy loxo lañ ko tegoon eh, daara ji nag yàggul lool mu nekk aw sémb woo xam ni sémb wu rëy rëy la. te bañ koy commencé ah yaakaaruñ ci woon kenn ñu dul waa daara ji ñi nga xam ne ñooy mbokki moustarchid yi wala mbokki section ba nga xam ni ñoom lañ ko séqaloon léegi nag yàlla dafa dogal ñu bëgg koo yaatal yéene ci yiw képp koo xamante ni si jullit nga foo man di nekk rek ñu yéene la ci yiw woowu ndax mu nekk yiw woo xam ne ñun ñëpp dañ koy mën a bokk loolu moo tax ñu commencé nag bëgg koo yaatal daara ji nag ñi ngi ko commencé woon octobre deux mille vingt bañ koy commencé nag ah liggéey bi metti woon na lool waaye nag yàllaa ngi doon def sutura ak barke kilifa ndax eh, bu ñu xoolee octobre ak léegi deux mille vingt ak léegi daanaka mën nañoo wax ne ñetti at sax matagul te yàlla dogal na ñu def suñu fondation ba def élévation ba kuule ba pare ba actuellement nii ñi ngi tegaat beneen ci kaw te biñ doon teg ci kaw yàlla dogal na mu mu te comme ragé na nag wax dëgg yàlla war nañoo jublu ci kuuleeg yu demee noonu te niñ ko waxee sànq rek yaakaaruñ ci kenn ku dul ñi nga xam ne ñooy mbokki jullit ñi képp koo xamante ni si da nga ciy barkeelu mu néew ak mu bari xeebuñu ko dinan joxe ay numéro yoo xam ni kuy barkeelu ci ngay barkeeloo moo xam mu nekk Orange Money wala mu nekk Wave su boobaa di nga mën a di nga ko mën a jaarale ci numéro bii di 77 780 35 81 lépp lu ci waay def rek mu néew mu bari yàlla na la ko yàlla fulal def ko ci say miisaanul xasanaat wasalaamualeykum wa rahmatullah inna alhamdalillah nahmaduhu wa nastainu wa nastahdih wa nusalli wa nusallimu ala afdalil xalq sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital si nuyu ak ziyaara yi sunu wasila ak cheikh muhammadinil mustafa si hafizahullah wa ayyadahu wa raahu di nuyu tamit di ziar maam Cheikh Ahmad Tidiane capitaine na ko yàlla taxaw te dëgëral ko euh, euh, mbokk yi dañoo ñëwoon di euh, andi sunu contribution ci programme bi nga xam ni moom lanu am saaw troisième jouru tabaski mu dellu ci liggéey bi nga xam ni moom la ñuy liggéey daara ji nga xam ni section waa saaw ñoo ko sim ñoo ko sumboon ñu ko ñu daara ji ñu ko Al Irshad ñu duppee ñu duppee ko Al Irshad bi nga xam ne moo nekk dakaar nekk Yoff nga xam ni euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy moom moo ko créé tur woowu lañ lañ ko duppee. daara ji nag ci programme mu njàng mi euh, fas nañ yéene bu yàlla defee mu mu sotti liggéey bi sotti ba mu commencé ñu fay war a jàngale dina am système mu euh, daara moderne comme ni ñu koy waxee maanaam dina am système mu internat dina am xale yoo xam ne fa la internet di fa jàng alquranul karim li tahfidil quranil karim dina am tamit marxala ibtidaiya maanaam euh, euh, premier cycle bi nga xam ne moom nga njëkk a duggee ci jàng nga commencé ko si at tahdirul awal continuer ba al mutawassit as saani maanaam ñu dina am classe CI continuer ba classe CM2 bu ñu foofu tamit ci marxala bu njëkk bi ci marxala ibtidaaiya bi tamit am nañ yéene yéegal ko ba mu dem ci al marxala al idaadiya moom mooy mu dem ci euh, moyen secondaire bi am nañ yéene tamit yéegal ko ba mu yegg ci al marxala al thanawiya te moom mooy niveau lycée bi loolu moo nekk programme bi nga xam ni moom lañ fas yéenee jàll euh, jàngale incha allah bu yàlla defee daara ji sotti daara ji nag irshad la boo xam ni dañ koo duppee irshad bi nga xam ni moo nekk Dakar képp koo xam ni jullit nga yow bëgg nga sa doom jàng mokkal alquran wala nga bëgg nga sa doom doom jàng euh, système franco arabe incha allah dinañ ko fa installé bu sooba yàlla loolu lañ fa fas yéenee jàngale su ko defee kon euh, ñu ngi koy lancé appel mbooleem jullit boo xam ni bëgg na dooma doomam mokkal alquran bu daara ji ubbee incha allah dina am système internat bu muy jànge pour mën a mokkal alquran dina am tamit euh, marxala yi nga xam ni moom la ni niveau yi ñuy jàngale yëpp ci système académique bi ci niveau euh, njàngu Sénégal incha allah fas yéene koo fas koo jàngale ci euh, irshad bi bu yàlla defee mu ubbi kon su ko defee kon dañuy lancer waat appel di woo rek képp koo xam ni xam-xam ñor na la képp koo xam ni daara ñor na la nga wuy suñu si sunu bis bu màgg bii nga xam ni ñu ngi ko organiser troisième jour tabaski war koo defee saaw comme ni ko mbokk yi ubbee euh, sunu oustaz Cheikh Ahmad Tidiane Sarr war ñu koo defar ca saaw kon su ko defee daal ñu ngi woowaat ñëpp di annoncé waat ni daara moo nu tax a jóg lu yëkkati euh, kàddu lislaam moo nu tax a jóg waaye tamit yàlla mi ngi ñu muure ci kippaaru euh, Cheikh Mouhamadinil Moustapha si fala yàlla fala nu yàlla cërale sunu waar ñu ko fay bay bu defee ñu ngi jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi nuyu di nuyu waa Saaw ndax ñoom ñooy temps commencement bi ñoom ñoom lépp ñoom la waasaaw lépp ñoom la kon ñu ngi leen di nuyu ah di leen def wax it woo itam nag te di leen dalal jàmm di jiital ci nuyoo bi nga xamante ni moom la ñuy woote bi ñuy woote ñu ngi ciy jiital oustaz Lo mooy suñu bàyyi moo jiite suñu bàyyi daara yi di woo père ak mère yëpp nag ñu ngi woo oustaz Souleymane Cissé di woo sëñ di woo oustaz Matar Ndiaye ah ñu ngi woo ci itam Diop Saaw boo fa ñëwee ñu ngi woo Baye Sayer Diop mu yóbbaale ñu père yëpp ak mère yëpp ñu ngi woo Baal Diop ñu ngi woo Imam Talla waa mu yóbbaale ñu ñëpp itam bépp père ak mère bu nekk Baal Diop mu Baye Talla ñu ko ah ñu ngi woo itam alaaji Pape mbaay Pape Si Mbaye eh, ci Ségal bu ko defee moom itam père ak mère bu nekk Ségal moom mu yóbbaale ñu ko naw ñëpp ñu ngi leen di woo ci turu daayiratul mustarsidin wal mustarsidaat ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu ndaw na ñëpp ñëw daal ndax seen bis la waaw. conférence bi nag ñu ngi koy defee saaw ca fi ñuy wax garage bu ndaw heure bi nga xam ni moom mooy mise en place bi mooy 16 heures na fa fekk ñëpp ñu mën faa jullee tàkkusaan bu ñu sëlmalee tàkkusaan rek oustaz commencé waxtaanam comme niñ ko defee woon daaw fàttewuñu nag suñu magu daara di Serigne Jibril Ndiaye des commerçants ci Notto Gouye Diama moom it ñu ngi koy woo ci bis bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah